nasru muminin bi xettali jullit yi ci mbooleem seeni jafe-jafe nasru muminin garab ak gàncax andi leen xéewal gu rëy muy ay xeetu jaaro yu doy waar lool te li ci gën a yéeme mooy ku nekk da ngay xoll sa tabian ba xam sa nature lan la ñu door laa jox nag jaaro bi dëppoo ak yow maanaam jaaro bi dëppoo ak sa tabian te day ànd ak cuuraayam ak parfum am gaaw lool efficace lool te mboolem ñi utiliser jaaro yi nee nañu da ngay takk rek tàmbale gis résultat te njëriñ li mooy daf lay may wërsëg ubbeeku bayre ak kaaraange gu mat sëkk ngir am ci jaaro yi lu jiitu dangay xam sa tabiya maanaam sa nature lan la ba pare ñu door laa jox jaaro bi dëppoo ak yow Nasrul Muminin garab ak gàncax di yëgal mbooleem ay clientam ñi nga xam ne dañoo bëgg xam seen tabiya maanaam seen nature seen couleur seen bis ak li gën ci ñoom daw leen gaaw woote ci numéro téléphone bi 445 04 79 ñu xoolal la say mbir ba noppi jox la jaaro bi gën ci yow Nasru Mominin garab ak gàncax di jox ay produits yu baax 100% naturel ci wàllu néew kàttan ak ñu tuuti bëgg am yaram ak ñi am yaram bëgg a wàññeeku Nasru Mominin garab ak gàncax mooy xettali jullit yi di saafara seen jàngoro. asalaamualeykum wa rahmatullah ginnaaw bi ma leen nuyoo maa ngi leen di siyaar di leen ñaanal jàmm. di ko sàkku ci yéen di leen wax ngeen sem vidéo bi bu baax a baax bu leen koy fàtte te ngeen koy partagé seen ay xarit pour ñu mën cee jariñu bu dee abone goo tamit ñoo ngi lay ñaan nga abone ci seen bii di suñ production ñi ngi yemoon ak yéen ci histoire bii di xale bi ak waa dëkk bi doxoon ci jëfe yàlla ginnaaw bi nga xamante ne jëfe yàlla buur yónni woon na ko ba mu jóge woon dëkk boobu di kàngaarloo daal dem ci dëkk boobu ñuy wax jafandul bi mu demee daldi di seeti joormaane bi mu demee daal di koy xamal tam yónnee nu buur maanaam li ko tax a jug ginnaaw ba mu ko xalamalee ba joor moomu nekk ci état bu doy waar si la profitoo daal di koy wax li nga xamante ne moom la ko buur yónni noonu tam li ci xewoon wax nañ leen ko épisode yee weesu ndax joor xamal na ko ne li ma dàq ci ay buur bari na loolu boobu ba léegi maa ngi toog di xaar ki ma loon seet tey nag yàlla indi na ma ko tey yow la daldi wax jëfe yàlla bi nga xamante ne buur moo ko yónni woon pour mu waxal ko mbëggeelam xale boobu di jor maane waaye jor moomu ki ñu yónni di jëfe yàlla moom la wax ne man bëgguma buur boobu yow laa bëgg jëfe yàlla bi mu dëgëree ci loolu ne ko man sab gawla laa man ak yow mënuñoo sëy mënuma laa takk waaye soo nangulee yónneen bi ma buur yónni dina mel na yaa ngi sëy ak man noonu tam joor xam ne pexe amul noonu la daal di waxee jëfe yàlla daal ko demal nga ànd ak buur gàdd di buur kàngaarloo nga àndaat ak moom ñëw ci sama dëkk bii di jafandul ma waxtaan ak moom noonu jëfe yàlla am na xel mu dal am na yaakaar tam ne joor moomu dina ko nangul li bëgg noonu nag la daal di déparé kàngaarloo daldi dellu fa nga xamante ne foofu la bàyyi woon dagg yi ko buur boole loon bi mu doxee ba àgg ginnaaw bi mu amee ñaari fan ci yoon bi bi mu demee la daal ànd ak ñooñu daldi di wéyal seenub yoon def ko comme niñ ko defee woon ba ñuy ñëw di yendal di fanaanal saa bu nu xiifee taxaw ci benn garab xéewlu ba noonu lañ demee ba am lu jege ñaar fukki fan ak ñett ci yoon bi noonu lañuy ñuy doog a duggee seen dëkk boobu ñu jóge woon di kàngaarloo bi ñu demee ba àgg noonu jëfe yàlla bi mu agsee daldi dem ca buntu kër buur bi mu demee daldi wax ak dag bi daan ne ko ñëw nañ de agsi nañ ci jàmm ak salaam buur nag moo ma yónni woon te yónneen bi ma yónni woon dem naa ci ba ñëw noonu garde bi daal di koy xamal ne yow kay buur joxe na fi ndigal wax na ne saa soo agsee bu ñu la tee nañ la bàyyi nga dugg kon tey jërul ñuy laaj buur ba xam danga amoon gan wala ama woon gan noonu jëfe yàlla daldi dugg garde itam ku nekk di njëkkante di tijji porte bi nga taxaw ngir di wane ne ndigalu buur li saf na leen ku nekk daal di wan buur ne man maa dugal jëfe yàlla noonu jëfe yàlla yoon bi leer loolu bunt bu mu jub ñu tijjil ko ko ba ni mu àggee ca bunt bu mujj bi mu demee ca bunt bu mujj fekk fa seef bi gën a mag seef yi nag ay néfa la maanaam ci bunt bi ñi gën a ndaw ñoo fa nekk looy gën a dugg di gën a gis ñi nga xamante ne ñoo gën a wex ka mujj nag mooy ki gën a tàng ci garde yi kooku bi jëfe yàlla agsee yow de buur saa bu xëyee dina ma la laaj ay yoonu yoon ba xam ñëwagoo buur yàkkamte na laa gis waxoon na tam saa boo agsee ñu bàyyi la nga dugg bu la kenn tee waaye taxawal ma yëgal ko ne ñëw nga ndax man ngaa dugg fekk mu jàpp noonu garde bi daal di dugg bi mu duggee ba fél buntu pale bi buur daal di ñokket daane kooku jëfe yàlla daal di koy teg jëfe yàlla garde bi ne ko déedéet man la waaye jëfe yàlla agsi na mu ngi ci bunt bi noonu buur daal di yuuxu garde bi ne ko lu muy def ci bunt bi ni nga duggee nii ñëw ana lan moo teewoon moom mu duggee ko ñëw waxuma leen woon su ñëwee ngeen bàyyi ko mu dugg noonu garde bi daal di jéggalu buur daal di dem daal di woo jëfe yàlla jëfe yàlla daldi dugg ci biir palais boobu bi nga xamante ne jëfe yàlla dugg na daal di nuyu buur buur daal di koy fay boobu fekk na buur programme sées bi jëfe yàlla war a toog sées bi tam nekk sées bu rafet siis bi lépp or la raxu dara boobu buur programme na ko defar ko teg ko pour di waajal ak ñëw jëfe yàlla pour mu bañ koo bett noonu jëfe yàlla daal di ñëw daal di toog ci siis boobu buur daal di fetasu dag yi nga xamante ne programme woon na leen wax leen ne saabu bu jëfe yàlla accès yi ma leen wax nii ngeen indil ko ko su accès ba mu fetasu leen ne yépp ñëw noonu buur bi mu fetasoo dag yi daal di daw ku nekk njëkkante pour gaaw indi lekk war ne buur man maay njëkk a jox lekk ji yàlla noonu lañ ko mayee ndox mu naan bi mu naanee ndox ba pare ñu daal di koy duyal ndox moo xamante ne ndox mu set la fañ ko rootee ca dëkk ba sori na loolu noonu jëfe yàlla buur daal di koy wax ne pënd nga te poussière bi jàpp na la demal nga raggu soo paree nga xéewlu te nga ñëw waxtaan ak man ndax yàkkamti naa loolu ba nga wax ma yóbbante bi joor yóbbante ci man noonu la jëfe yàlla daal di jógee daal dem raggu ji raggu nag mooy sangu waaye mag ñu njëkk ña raggu lañ laan wax jamono ji fi mu toll daanaka ñu bari xamuñu ko moo tax day baax ñu koy leeral noonu la jëfe yàlla daal di jógee daal di dem sangu ginnaaw bi mu sangoo ba pare daldi dellusi ci paleb buur bi fekk ñi tegal ko xéewal gu bari nag maanaam ñu tegal ko ay ñam ay façon ñam yu bari loolu sax noonu mu daal di ñëw xewlu ba suur ndax xiif jàppoon na ko ndax seen dund commencé woon na di jeex ci yoon bi daanaka ñaari bis yi dañ koo muñ naan rek lañ doon def jëfe yàlla daal di xewlu ba suur ba ximmili ku nekk ci jàmm ak salaam nag noonu la jàkkaarloo ak buur daal di sant yàlla sant buur bi ko jox lekk bi waaye buur daan ne ko ndax fi mu toll nii lépp jàmm maanaam lépp baax na jëfe yàlla daal di koy xamal waaw noonu buur daan ne ko li ma lay njëkk a laaj mooy ndaw soosu di joor maani rafet gi ñuy wax ci moom ba buur bu nekk di tëb di dal di dem di ko seeti rafet googu est-ce que moo ngi ci moom noonu jëfe yàlla daal di reetaan daan ne ko buur ndaw soosu di joor lépp luñ la wax ci ak rafetam des na kooku taaram lépp luñ la ci nettali wala lépp loo ci dégg jàppal na bàyyi nañ dara rafet gu mu rafet mënuma koo xaymaal dara ci àdduna bi mënoo indi ci àdduna bi lu dàq joor moomu nga xamante ne mooy joor maane noonu buur daan ne ko jekkaayam nag nu mu demee ndax rafet ak jekk bokkuñu nit man nga rafet loolu rafet ci xar kanam lay feeñ ak ci der mais man nga bañ a jekk man nga jekk bañ a rafet lépp dinañ ci tànn jigéen waaye buur daal mu ngi laaj jëfe yàlla nan la ndaw soosu mel ginnaaw bi mu laajee jëfe yàlla jëfe yàlla wax ko ne kooku ku rafet la noonu mu daan ne jëfe yàlla nan la ak jekkaayam mel dafa njool wala dafa gàtt dafa dafa am yaram wala dafa ndaw noonu jëfe yàlla daane ko kooku mooy nit ndit carrément moo nekk noonu njoolut gàttut rëyul sewul léppam ci diggante bi la ne ndaw si daal su ma la waxee daal buur dëgg ndaw si daal macha allah lépp luy yàlla di maye ci taar bañ koy xool di am cofeel ci moom yàlla may na ko ndaw soosu noonu tam buur noonu tam buur fiiraange daal di koy jàpp mu ne ko jëfe yàlla noppil yow moom xool nga joor di jëfe yàlla daane ko xool naa ko waaye yow loon ko xoolal sa ay bët laa àbboon taxaw di la xoolal ndaw si ndax bëgguma benn yoon dara réet ma ci ngay dugg ba ci biir di ko ci gis sa yaakaar di tas ci man moo tax xoolal naa la ndaw si waaye xooluma ko man sama jëmi bopp noonu buur daane ko baax na daane ko nag ginnaaw bi nga ko waxee sama mbëggeel ak li tax ma yabal la fa ana lan la wax ak nan nga def ba wax ko ko yow mii nga xamante ne nduru nga nit ku xeebu te dara fekku la ci ndax kooku kat doomi buur la te benn jaam du ko yab waxuma laaj nit koo xamante ne daanaka dafa wàcce boppam dara sëfu ko ci àdduna ku mel na yow noonu jëfe yàlla daal di reetaan buur daal di ko wax nga dëgg ndax bi ma demee rek ba war a dugg fa mu nekk laataa ma fay dugg xaw naa yàgg ca biti ndax ñoom ñépp gëmuñu woon ne man joor war naa ko mën a gis gëmuñu woon tamit ne man war naa mën a am soxla ci joor waaye ginnaaw bi yàlla suturaal na ma ba biñ ko waxee sama bindu ak ni ma mel doonte niñ ko ko waxee noonu laa meloon nit ku xeebu la nit koo xamante ne bi mu fi ñëw dafa dox loolu lépp wax nañ ko ko waaye yàlla mi dara dogal na ci am xelam ba joor moomu daa may woolu ba ma dugg ci biir bi ma duggee tamit dama koo xamal ne man sab gawla laa ginnaaw bi ma laajee yow lan moo doonoon say tànk ma daa koy xamal ne man ab gawlo dong laa dama jóge kàngaarloo ñëw pour xalamal la wut lu ma am dimbali samay njaboot loolu tam jaaxaloon na ko waaye ma dëgër ci wax ko ne dama dox jóge kàngaarloo am naa ay weer ci yoon bi ba ni ma agsee lépp pour bëgg laa gis noonu laa ko tàmbalee xalamal bi ma ko commencé xalamal mu daal di tàqalikoo ak sagom bi ma bàyyee xalam ji taxaw ci ay ndigalam mu daldi may wax ne bi ma doonee jànq doon ku taaru sama taaru wër àdduna wërngal këppu buur boo xalaat ci àdduna ñëw na fii di ma ñaansi bam des benn buur dong muy buur boobu di buurub kàngaarloo waaye buur yi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen dëkk yi buur yépp ñëw na ñaan si ma ku ñëw tam dinaa la dàq ndax ñoom ñépp yàlla dafa dogal ne bëgguma ci kenn bëgguma ci kenn ndax ñooñu seen nguur ak seen alal lañu yaakaar ci man man nag tey sama xol tànn na waaye yow mii di jëfe yàlla la tànn noonu jëfe yàlla daal di xamal buur ne ko ginnaaw bi ma ko xalamalee ba pare fësal na ak mbëggeelam daal di ma koy wax wax ne ñim dàq ci ay buur bari na waaye temps boobu yépp gisul woon ku mu bëgg bis boobu la ko gis te man la jëfe yàlla xamal na ko buur buur ne ko bi mu la waxee loolu nan nga def commencé di sensé kanamam jëfe yàlla daane ko bi ma waxee loolu dama ko wax ne man ak yow mënta ne man ak yow mënuñoo sëy man ak yow mënuñoo sëy li tax mooy yow doomi buur nga man doomi baadoola laa te bi àdduna bi sa sosoo ba tey mësuñoo gis doomi buur biy sëy ak baadoola doomi buur ay buur rekk lay sëyal waaye man ak yow suñu diggante mënta ne noonu tam la commencé di forcer di jël alalu baayam ji may ma ko jël na kërug baayam googu ak alalu baayam ji yépp daa di ma koy may ngir rek ma takk ko nekk boroom këram ndax neena na gi ma bëgg jéggi na doyo loolu buur nag fi mu toog mu ngi fiir commencé di ñaq mu ngi fiir loolu nag ndax moom lim yabale woon jëfe yàlla ak li jëfe yàlla indi bokkun doonte jëfe yàlla përeegul waaye buur daan ko li ngay wax ni waxuma la ko lan nga ko tontu mu ne ko mooy li ma la tontu léegi dama koo xamal ne man ak moom suñ diggante mënul ne buur ne ko kon yow lan nga ma fa waxal mu ne ko buur diglu ma rek ma àggale buur daan ne ko yow rek laay diglu mu ne ko ginnaaw bi mu forcé jël alalu baayam bi may ma ko noonu tam laa xam ne tàqalikoo na ak sagoom si la profito daal di koy xalamal gitaaru sawta bi ma ko xalamalee bu bumuk sawta noonu mu gën a tàqalikoo ak sagoom noonu tam la daat may yuuxu ne ma bàyyil sa xalam gi bala may def musiba jox naa la li ma am yépp sama jëmm ji rekk moo ci des te soo bàyyiwul sa xalam gi dinaa def musiba ndax dinaa jël sama jëmm ji jox la ko noonu ma daal di bàyyi xalam gi ndax moo mu ëpp doole te këram laa nekk te nguuram naat na ba yéen ñépp ngeen xam ko kon lu mu bëggoon ci man du ko të da koy am moo tax ma daal di bàyyi xalam gi noonu bi mu giifee nag si laa ne ko kon toogal nag ñu waxtaan ma wax la dëgg-dëgg li ma fi indi laaj na ma nag kon yow am na leneen lu lu fi indi lu dul sa xalam gi mu daal ne ko waaw si laa ko xamalee ne buur gàdd moomu ngay wax ne ñëwu fi te mësta yónnee buur boobu mu ma yónni noonu la ma laajee lu la buur yónni mu ne ko buur nee na daf laa bëgg te su sañoon mu doon sa buur nga doon lingeeram bi ma ko waxee lool nag jug na taxaw daldi waaxu waaxu romb ma waaxaat dëpp waaxuwaat romb ma ba nekk sama ginnaaw daldi ne ma jëfe yàlla man bëgguma buur yow laa bëgg noonu ma daal di koy xamal ne fekkee mën nga bëgg te bëgg nga lu ma neex soo sëyee ak buur dinga mel ne sëy nga ak man ndax saa soo geesoo dinga ma gis saa boo ma soxlaa dinaa ñëw xalamal la ndax xalam gi moo tax nga bëgg ma si la ma waxee ne buur gàdd moomu la yónni jugal nga delluwaat kàngaarloo nga wax ko mu préparé wu ni buur yi préparé bi ñuy ñëw mu ñëw fi dëggal li mu wax bu boobaa dinaa jël samay matuwaay jëfe yàlla daa ne ko buur gàdd buur daal di koy wuyu mu ne ko joor nee na nga takku ba dëgër ànd ak say gawar jiital say nag ak say ay xar ak sa alal comme ni ko buur ya fa ñëwee woon defee nga ñëw waxtaan ak moom boo ñëwee dina la tontu te nee na boo ñëw man ak yow ñu ànd noonu buur xel mi daal di dal mu ne ko joor moo la wax ne man man naa ñëw waxtaan si ak moom joor de kon gëm naa ne dina ma nangul ndax su ko narut woon duma woolu ba may ñëw ci dëkkam boobu di ñëw di ko ñaan si ndax ndax ñi ma ëpp doole jaar nañ fa ba jàll kon kum kon man mii nga xamante ne am na ñu ma ëpp doole jaar fa ba jàll su ma ñëwee dinaa tuuti ci bëtuwaa dëkk ba tojoor dina rus loolu comme que rusul loolu ba ne ma ñëw am naa ci yaakaar yow nag jëfe yàlla sant naa la gërëm naa la te gis naa ne gor dëgg nga te waxkatu dëgg nga ndax su la neexoon la fa xew yépp yi nga xamante ne su ma ko déggee dina def ay mbir ci sama yaram dinga ko nëbb waaye lépp nga ma wax tirisi woo ci dara lii tax na ma gën laa jàpp ndax nditu dëgg-dëgg daal mooy yow noonu la daal di fete soo daggi ñu daal di dugg ca gétt ga songu gétt ga rey fa lu bari ñëw daal teral jëfe yàlla ak dag yi mu àndaloon ci timis ga tam buur daal woolu benn géwalam géwal bi nekk géwal yu gënoon a foor ci moom maanaam géwal bi nga xamante ne mooy chef programme yu mag yi yépp moom moo koy woote buuru kàngaarloo nag am na yu mbuuteeg yeneen buur yi weesu ndax soo leen seetloo yeneen buur yi weesu chaque minute dañu woote ndaje mais buuru kàngaarloo moom woote mën naa yàgg mën naa toog ñetti weer ñeenti weer wala at sax doog di woote waaye daal ginnaaw bi mu toogee lu yàgg wootewul ba am xibaar boobu war a dem fekk ci joor moomu woo na géwalam wax ko ne duggal ma ci dëkk bi nga jël nënd li nga xamante ne moo gën a foor ci sa nënd yi nga fëgg yëgleel ma ne suba yoor-yoor dama leen a soxla yoor-yoor moom ñu ci bari xanaa xam nañ heure bi ndax wax nañ leen ko ci épisode yee jàll. mooy 9h 10h jëm midi noonu mu ne ko nga wax leen yoor-yoor saa bu ñu xëyee ba ndékki ba pare na ñépp génn ñu dajee ci pénc mi ñu toog dama leen a soxla waxtaan noonu la ko géwél bi defee timis gi. la daal takk fasam daldi jël ndëndam di fëgg di yëgle diglu leen jàmm la buur di buur kàngaarloo di buur gàdd nee suba cuuy muy suba teel na ngeen teel a yeewu defaral seen njaboot yi ndékki ñu ndékki balaa yoor yoor bi daje na fekk yéen waa dëkk bi ñépp ngeen daje ca pénc ma daf leen a soxla géwél bi noonu la wéyee di wër dëkk bi mbeddoo mbedd mu dugg fa laataa fajar di jot dajal na dëkk bi yépp wax leen yóbbante buur information bi siiw na ginnaaw bi ñu fanaanee noonu lañ ko defee comme ni leen ko buur sante waaye mbooloo mi tam bari woon na coow loolu laataay buur di ñëw ku nekk yaa ngi wokkante waa faatu buur moom wooteem bu rëy bii moom lu tax mu woote ko ah man mii jaaxal na ma buur daal woote bii moom musu koo woote ci dëkk bi kii géwalam bi nga xamante ne da koo noppaloon noppal ko jël géwél yi ndaw yi tey mu jugloo ko wërloo ko dëkk bi yépp kooku dégg naa ci fajar la noppi ci yëgleem bi fu mu jaaroon jaar na fu mu jaaroon benn yoon jaaraat na fa waaye noonu ñuy nekkee di jëw buur ku nekk naan buur moom wooteem bi rey na noonu la buur génnee ci këram yenn ci ay dagam daal di koy jiitu sottil ko ay xarfa xuufa fi muy jaar noonu mu daal di ciy jaar ba ni mu agsee ci njoogaan li buur bi mu agsee ci njoogaan li daldi toog bi mu toogee lingeer soxnaam daal toog ci wetam muy aawa bi nga xamante ne moo nekk soxnaam jamono yi noonu buur noonu buur daal di dëkk bi daal leen di wax ne daje bi gëj naa am ñi ma gëj a gis tam bari na loolu lii sax nekkul lu war waaye tam dafa am nu mu demee ndax xam ngeen nguur ni mu mel daanako yu bari dañ la koy tere waaye maa ngi koy jéggalu di leen ñaan nag ngeen ñaanal ma yéen waa dëkk bi yépp ndax dama nekk ci mbir moo xamante ne dama cee bëgg am ndam mbir moomu nag ginnaaw bi mu ci yaakaaree yàlla soxla naa ci seen ay ñaan pour ngeen ñaanle ma yàlla mu yombalal ma ko noonu tam coow li commencé waat di ngul-nguli ñuy wokkante ñenn ñi naan waa buur ban soxla la am ba woo ñu fii dajalee ñu fi yeewuloo ñu fajar tàngaloo ñu yeewuloo ñu fajar ñu def li ñu war a def yépp mu dajalee ñu fi naan ñu ay ñaanal leen ma noonu waa dëkk bi commencé wokkante ñenn ñi naan xëy na daa nekk ci mu tukki ñenn ñi naan xëy na dafa feebar looloo tax sax ñu gëj koo gis mu soxla ay ñaan waaye noonu coow li bëree buur daan ne diglu leen ma àggal incha allah li leen ump yépp dina leen leer man ngeen a bañ a waxatee dara ba ma pare ci yéen noonu waa dëkk bi yépp diglu jox ko nopp buur daan ne olof njaay dafa wax ne ku say moroom jari bay soo jariwul bay tamit bàyyi nga sa waar waaye njagu bay nga loolu nag tax na ma takku takkaayu jug am ci lu ma jublu waaye tam soxla ci seeni ñaan soxla ci seeni ñaan bu baax a baax mbooloo mi nag commencé di wokkante ñenn ñaan waa buur moom li muy wax nii li muy wax nii moom xoot na di ñenn ñi naan ah man de yàlla bum nekk li may xalaat li may xalaat daal mooy baadu buur dafa bëgg a dem jafandul ca joor moomu nga xamante ne mooy joor maane ñi ci des daan ne ah buur mii kat xam nga ne xalaatul loolu foo xamante ne ñu la ëpp doole ëpp labtaar gën laa neex deret dem nañ fa amuñu fa dara buur mii xam nga ne buur mi xam nga ne ca la mu nekkoon ci ñàkk dem gi la nekk ba tey waaye xalaatul mukk di dem naan day seeti jormaane moomu di ko ñaani soxna buur daal am na fit ñépp xam nañ ko waaye aw fitam àggagul foofu noonu mbooloo mi di waxee buur daal ne leen noppi leen rek diglu ma wax naa leen diglu leen ma soo leen ma digloo lii leen ump dina leen leer buur daal di wax waa pinc mi daan na leen man mii di buur gàdd li may wax dina leen bett te dina leen jaaxal ndax dama bëgg a dem ci dëkk boobu di jafandul seeti joormaane waxtaan ak moom wax ko sama mbëggeel noonu ñépp dar seen gémmiñ nag ñii jommi ñii tiit bay lox am na ci ñoo xamante ne sax dañ doon jooy ndax tiital gi ñi tiital buur noonu buur daan na leen seen xel na dal te ñaanal ma man buur gàdd nag dinaa tànn ci mbooloo mi ñetti téeméeri gawar ñetti téeméeri gawar yoo xamante ne ñetti téeméeri gawar yoo xamante ne ku nekk fas wa nga yor di nga ma ci sëfal alal ju baree bari dinaa tànn ci sama dag yi téeméer pour ñu escorter ma gunge ma ma dem ci dëkk boobu di jafandul muy ñeenti téeméeri nit yoo xamante ne war nañoo ànd ak buur gàdd suy dem ci jafandul mu ne nag li tax ma yóbbu mbooloo mu bari mi ñi may tànn ku nekk ngànnaay la nga am sa kër nanga ko jël denc ko fu sori ci sa fas wi ndax man su ma demee ci gone googu di joor dinaa fa yàgg dinaa fa yàgg ci ñaari façon benn bi mooy su ma nangu nangulee mbëggeelam dinaa fa toog seetu ak moom waajal ko wax leen ngeen préparer pour su ñëwee am lu ko neex ci dëkk bi beneen bi tam mooy su ma demee rek mu gàntal ma dinaa fa xeex dinaa xeex ak moom jéem a taal dëkkub baayam su ma ko gañee baax na su ma ko gañewul baax na yéen xam ngeen ne bañoon mu may ñàkkal kersa may xeex ak moom moo taxoon boobu ba tey dem ma comme que dem naa bay dem nag duma ci bañ dara ndax alal ji ma koy jox maa ko moom su ko naree foqati dinaa ko jaayante ak moom noonu tam ñépp tiit noonu tam waa pénc mi ñépp tiit buur daan ne ñi ma war a tànn nag ñooy tànn seen bopp képp ku am fit taxaw jàmbarloo ak joor moomu ginnaaw bu aw ay amee suñ demee te fekk ñu fa jàmm jugal nga taxaw ma séen la noonu mbooloo mi tamit lu ëpp juróomi téeméeri nit ci ay góor nekk ay sën jug nañ taxaw bi ñu jugee taxaw buur daal tànn ñi nga xamante ne ñoom la ci soxla tànn ci ñetti téeméer daal di bàyyi ñaar téeméeri ñetti téeméeri tam buur jox na leen ay ngànnaay noonu buur yeewi na waa pénc mi ku nekk ñibbi nga sa kër waaye ku nekk ñibbi ak tiit ak jàqi ndax ñenn ñi seen ay doom ñoo ngi woon ci mbooloo mi nga xamante ne jugoon nañ pour wax ne buur mën nañoo dem ba buur tànn leen buur tànn na ñetti téeméer ci ñi war a dem ñooñu tiit nañ am na ci ñoo xamante ne seen ñetti doom a ngi ci buur am na ci kër yoo xamante ne buur gone yu góor ya fa nekk ñëpp la jël am na ci ñoo xamante ne seeni benn doom a ngi ci ba tax na dëkk bi ñoo ngi woon ci na ndax xam nañ ne joor moom ku baayam bàyyeel alal la ak ay garde yu bari te buur bu fa mas dem loo am am doole yóbbu ay soo demee da ngay perte waxuma la dag ya nga yóbbu waaye même buur ba rek dañ koy rey loolu daal tax na waa dëkk bi tiit waaye ñi nga xamante ne àngu nañ loolu takk nañ seen fit tiituñu benn yoon ginnaaw biñ nekkee ci coow loolu ku nekk di woo sa doom di ko yedd ku nekk di woo sa doom di ko yab ñii di sang seeni doom di leen ñaanal ñenn ci tam dugg ci xarfu xuufa yi ñenn ci tam dugg ci xàmb yi sangu ci seen xàmbu maam yi takk seeni gàllaaj pour préparer yoonu buur boobu noonu lañ demee ba bis bi nga xamante ne buur war na ko déparé fi nga xamante ne mooy kàngaarloo jëm jafandul daal di agsi bis ba ba mu agsee buur daa di wóolu jëfe yàlla ndax jamono yooyu fekkoon na jëfe yàlla nekk ci kër maamam waaye tam nekk fa ak yaayam ndax buur ginnaaw bi mu préparé pour dem jëfe yàlla bi mu ko xamalee yaayam yaayam indi na ko ci kër baayam dugal ko ci ay xàmbu maamam sangu ko préparé ko comme ni buur préparé boppam jëfe yàlla daal yaayam seetaanu ko benn yoon taxawu na ko ci wet yépp ba mu jekk buur bi mu yónnee wóolu jëfe yàlla jëfe yàlla daal di ñëw noonu buur yendoo waxtaan ak moom tëjoog moom ci biir pale bi ñépp génn xajal leen kër gi moom ak jëfe yàlla rekk ñoo nekk ci biir kër gi soxna yeeg ñépp dañoo génn nekk ci biti fa la ñu toggee fa la ñu defee lépp buur yendu naa waxtaan ak jëfe yàlla waaye tam jox ko ay sangat pour mu sangu jox ko ay ñaan tamit pour mu muslaayu ngir buur moom ndax buur moom am na lu muy préparé ndax bëggul benn yoon jot di ko ñàkk kersa su ko ñàkkee kersa daal moom dina am lu mu def ca dëkk ba pénc mi fees na dell ak ay gawar ku nekk yaa ngi wor sa fas daal di taxaw ñenn ñi yab xaalis ñenn ñi yab wurus ñenn ñi yab or ñenn ñi tam yab jamaa donte buur joxewut jamaa bi mu am lépp waaye am na lum jot a joxe noonu ñoom ñépp jekk nañ taxaw buur noonu la àndee ak jëfe yàlla daal di génn bi ñu génnee mu daldi wax mbooloo mi muy dag yi war a àndal di téeméeri dag yi ak ñetti téeméeri gawar yi mu daal leen di wax ne kii di jëfe yàlla mooy ki nga xamante ne mooy sama portu parole maanaam su ma demee lépp lu ma waroon a wax waxtaan naa ci ak moom moom moo koy wax jëmm jooju nga xamante ne mooy joor kon nag yoon bi nañ xam ne ñeenti téeméeri nit la ak ñaar muy yéen ñeenti téeméer yi taxaw ak man ak jëfe yàlla noonu la buur léemoo war ci fasam jëfe yàlla léemu war ci fasam yaayam sottil ko ndox moom jëfe yàlla buur tam waa dëkk bi ku nekk tee ndox sottil ko ñaanal ko yonn jàmm fa muy dem daal bu fa ay am benn yoon nafa fa jàmm rekk am noonu la buur déparé bisub dimaas ci ngoon daal di jubali jafandul ginnaaw bi nga xamante ne départ nañ ba daw ba génn fi nga xamante ne mooy kàngaarloo di dugg ci dëkk yi ndaw yi nga xamante ne ñoo ko wër noonu fu ñu romb ñoo ngi leen di xool ngir jur gu bari gi ñu jiital nag yi ak xar yi bëy yi giléem yi yu bari daal ñu jiital ko jubali foofu ci jafandul fas itam bari woon na loolu sax waaye noonu lañ daal amee ay bis ci yoon bi di yendal di fanaanal saa buñ demee ba xiif daal di taxaw buur beru ci koteem ay dagg wër ko di ko upp ba mu lekk ba pare noonu ñu daal di yéegaat ci fas yi daal di jubali ca dëkk ba bi nga xamante ne dem nañ ba àgg ci dëkk boobu di jafandul bi ñu demee ba àgg waa jafandul dañoo tiit ndax buur li ko topp ci ay dag mësuñoo gis nit ñëw fa ànd ak ay nit yu tool noonu donte alal ji indi nag jaaxalu leen ndax jur gi moom bari waan na ay buur yu fa ñëw indi jur yoo xamante ne moo ëpp loolu fuuf gën koo ngandale ay jur waaye nit ñi nga xamante ne buur ànd na ak ñoom ñoom musuñoo gis ab buur bu fa ñëw ànd ak nit ñu toll noonu waaye li kër gi du ruqe lépp joor moomu fi mu toog fi mu toog ci kaw njoogaan gi moo ngi dégg suuf si di riir maanaam mu ngi dégg moo ngi dégg fas yi ni ñi màmmoo ak ni ñuy cëpp-cëppee ci suuf si riir gi daal duggoon na ba ci biir pale bi loolu taxoon na mu jug di xool li xew moom lum laan génn bariwul waaye bis boobu génn na bi mu génnee daldi di jàkkaarloo ak jëfe yàlla jàkkaarloo ak buur gàdd jàkkaarloo ak nit ñi mu àndal ak jur gu bari gi mu yor buur ginnaaw bi mu tegee bët joor bi mu taxawee ci bunt bi ndax lépp ay wer la mën ngaa taxaw ci biti di gis ci biir bi mu gisee joor dafa tiit ba fas bi mu toogoon dafa daanu moom buur dafa cëppeelu donte sulaan wàcc ay nit ñoo laan ko wàccee waaye dafa cëppeelu daal di daanu jug taxaw jàkkaarloo ak joor moom bi mu gisee joor tàqalikoo na ak sagom ba mëntuta xaar maanaam mënta xaar sax ñu koy dalal wala ñu koy ganale waaye joor daal di fetasu bi mu fetasoo garde yi daal di escorter kër gi maanaam daal di wër kër gi garde yi fees dell ci lu wër kër gi kër gi mënatoo laal li nga xamante ne mooy veer bi ndax garde yi jalaloo fi fees fi dell xam ne joor sax mënatoo koo teg bët ndax garde yi dañ la koy làq jëmm jooju di buur gàdd ñi nga xamante ne ñoom la gis ñu wër kër gi ñoo ëpp fuuf ñim fi indi jëfe yàlla moom mu ngi ci kaw fas wi di jàkkaarloog joor noonu jëfe yàlla daal di reetaan daal di tàllal loxo ki nga xamante ne mooy joor noonu joor daldi yër yëraat daal di xool muy jëfe yàlla joor nag si lay doog xam ne kon buur gàdd moo fi ñëw ànd ay dag yu bari yi mu daldi fetasuwaat ñu daldi xajal buur gàdd mu daldi di dugg noonu la jëfe yàlla dàqee aw fasam daldi di dugg gawar itam joor daal fetasu fettasu ñenn ci ay dagam wax leen pour ñu dalal leen fa ñu dalal gawar yi noonu lañ leen jëlee yóbbu leen fa ñu dalal gawar yi noonu la joor dal daldi yóbboo jëfe yàlla ak buur gàdd ginnaaw bi mu nuyoog ñoom jàmm sante ak ñoom buur gàdd moom day xool joor rekk ndeysaan moom daal dafa bëgg joor mbëggeel goo xamante ne moom xamul ban façon mbëggeel la moom joor li muy wax yépp mu ngi koy fay waaye àndut ak sagom ndax xam na ne xale bi liñ ko waxoon ci moom lépp mu ngi ci moom wax ju teey la yor wax ju yamamaay wax ji xumbul wax ji xumbul waaye tamit suufewul su waxee dinga ko mën a dégg waaye wax ji du bari ba déranger la ki mu gis tamit jëkk na façon jekk goo xamante ne yéem na ko rafet gi tamit ñëw ne ko dannu ma noonu joor daal leen di yóbbu ci benn bâtiment bu nekk ca kër ga foo xamante ne ay verre la comme ni fi mu nekk nekkee verre foofu tam nekk na foo xamante ne ci ay fan la ko defarlu bi mu koy defarlu nag jëfe yàlla mi koy seet si di ànd ak buur gàdd loolu moo taxoon mu defarlu ko bi mu leen fa dugalee dalal leen yebal ci ay dagam ñu indil leen xéewal yu bari noonu ñu daal leen di berndeel berndeel yoo xamante ne bari na loolu ginnaaw ba leen fa dalalee ba ay dagam di leen berndeel bi mu génnee la daal di woo ab sàmbam daal di koy wax ne xar yi ak bëy yi jiital leen nga dugal leen fa nga xamante ne fa la sama nag yu yooyu nekk ak fa la sama xar yi yooyu nekk ndax yi ngandewuñ noonu daal li buur gàdd indi nawloowu ko daf koo xeeb ndax nag wax na dëgg daal na gis yu ko gën a rëy ak yu ko gën a am solo noonu la daal di delluwaatee ci ab paleem daal di toog fi mu toog ndeysaan jëfe yàlla rek lay xalaat di fàttali ko ba muy jàkkaarloo moom mi koy xalamal image yi di ñëwaat ci bëtam xolom sedd loolu mu kontaan loolu mbëggeel gu rëy rëy daal la bëgg jëfe yàlla noonu bi mu toogee ba ay tàkkusaan mënta muñati jëfe yàlla ndax jëfe yàlla mu ngi ci kër gi noonu la fetesu dag bi ko gën a jege ne ko demal nga wol ma jëfe yàlla comme que mu ngi sama kër gi te maa ngi koy nangu te sama dëkku baay la ñëw kon su ma ko soxlaa war naa ko mën a gis dem leen ngeen wol ma ko mu ñëw noonu bi ñu demee daal di woo jëfe yàlla jëfe yàlla tamit daal di laaj garde bi ne ko man la woo walla man ak buur mu ne ko mu ne ko joor yow rekk la soxla nee na daf laa bëgg a gis nee na nga ñëw wuy ko léegi jëfe yàlla daan ne buur xëy na dafa bëgg a waxtaan ak man laataa ngay ñëw su ma demee tamit dinaa waxtaan ak moom noonu la jëfe yàlla daal di jógee dal di dem wuyu ji joor bi mu demee bi mu demee daal di nuyu joor daan ne ko sama géer bi na nga def baa yaa ngi ci jàmm noonu joor daal di koy fay ne ko baa dallu ngeen baa xewlu nga bu baax a baax ana buur baa moo ngay dallu mu ne ko waa buur moo ngay dallu moo ngi ci jàmm bu baax ñun kay teraanga gi ñu defal rëy na loolu ndax xam naa ne bernde gi ñu bernde su dee mas na fee am tamit géej na fi noonu joor daal di jug fi mu toog daal di ñëw fekk fi nga xamante ne foofu la jëfe yàlla toog jëfe yàlla ni mu farank laayoo toog joor noonu la feranku laayoo jël benn bëtu ëmmam sësale ko ci benn bëtu ëmmu jëfe yàlla baneen bi tam noonu noonu mu daal di jël ay loxoom moom joor daldi di téye ci ay loxo yi jëfe yàlla jëfe yàlla tam bi joor téye ay loxoom cofeel ak mbëggeel fees na ci xolam waaye mënu koo forcer benn yoon ndax bëggul mukk di tas yaakaaru buur cay jigéen ak i pexem waaye noonu la joor téewee loxo jëfe yàlla yi ginnaaw bi mu ko téyee xool kanamu jëfe yàlla mu am réaction bu mu def mu xam ne nag jëfe yàlla mii bañu ko waaye ngor lay doxal te affaire de ngor nag duma tàqale sama diggante ak jëfe yàlla noonu lay commencé di waxtaan ak jëfe yàlla ne ko yow jëfe yàlla lan ngay bañ ci man ana man lan ngay bañ ci man depuis bi nga fi ñëwee ba demaat boobu ba léegi nelawaatuma nelaw yu doy jëfe yàlla daane ko loolu gis naa ko bi ma la gisee sax tiit naa ndax sa ab taar daanaka xaw naa wàññeeku ni nga gënoon a rafetee xam naa ne su ko fi buur fekkoon dina gën a tàqalikoo ak sagom ndax li ñu nekk man ak moom yépp amul jàmm añ bi li muy neex neex tëlu ko lépp daf may laaj kañ la ñu joor di woo bi nga wootee bëggoon naa ñëw waaye comme que man dong nga soxla moo tax man dong ma ñëw mu ne ko buur boobu bàyyi ko foofu mu toog man buur ñoruma yow yaa ma ñor xanaa gisoo ma ñépp bëgg ma ba ci buur bii nga nekkal mboolem buur yi ci àdduna bi man naa taxaw fëgg sama dënd ne maa ci ëpp alal te maa ci gën a naatle ak nguur kon nag jëfe yàlla lan moo tax bëggoo ma te man xam naa ne li nit di bëggee nit lépp mu ngi ci man reewande ku ma ko wan dama bëgg nga bàyyi ma ba faw sa xel bañ a nekkati ci man ndax amaana ba ñu ñëwee wax ma seen mbëggeel ñoom buur yi ma tontu leen tontu lu neex dinañ fi ñëwaat di jël ci seen deuxième sens te loolu nekk lu may gënal moo tax ma ñàkk leen kersa jànni leen ñu dem ba ñépp ci ñàkk kersa lañ ma xame waaye yow mi nekk ak man xanaa samay jukko fekkee nit nga war na laa leer noonu jëfe yàlla daan ko waaw gis naa ne ko teey nga te yaradiku googu gisuma ko ci yow gis naa ne ko yaru nga ci li ma wan waaye nag dafa fekk ne buur dafa am yaakaar ci man ma lay ñaan fekkee bëgg nga ma nga nangul ma cofeelug buur nga nangul ma buur bëgg gim la bëgg bu boobaa dinaa la jege te dinga mel ne man nga nekkal lenn rek mooy nekk différence sëy bi muy buur rek moo lay xam waaye jëfe yàlla li mu bëgg mënta ne ndax joor daf ko bëgg fa mbëggeel tàmbali ba fa mbëggeel yam koo xamante ne mësta bëgg mësta xam bëggante bis ñëw mu gis ku mu bëgg dina def lu mu man ba jot ci waaye du ko bàyyi mukk te joor xolam boobu première nit ki mu ci bëgg mooy jëfe yàlla ba looloo tax sax mu waxoon ko ne man ni ma la bëggee sama yaay ak sama baay bi ma bàyyil alal ju bari jii sax bëggeewuma leen ko looloo taxoon tam mu may ko këram may ko alal ji mu yor yépp pour rek jëfe yàlla nekk boroom këram waaye jëfe yàlla taxaw fi mu taxaw waaye joor tam nekk fu mu nekk joor nag bi mbir mi seeree ba seeree ba dëgër joor nag daa di yamale ñàkk jëfe yàlla ak dee ndax jëfe yàlla mii moom xalaatu koo ñàkk noonu mu daal di taxaw yeetaat boppam daan man may buur di doomi buur ëpp doole may bëgg dara mu may të daan ko baa xam nga ne yow jëfe yàlla dangay doon sama borom kër ci nii wala ci naa maanaam dangay doon sama borom kër mu neex la nga ànd ci ak man neexu la nag ma dem ak yow ci naa forcé la ko te force da ngay doon sama bërëm kër ba ñu ma ci dara nag noonu jëfe yàlla daane ko waa buur nag buur mi ngi ma indiloo ba ma indi ko fi mu ne ko sama yoon nekkul ci buur moo xam ak njuram su bëggee suy dem ma joxaat ko alalam may ko lépp lum fi indi ba dolli ko waaye na ma bàyyee ak yow moom mbëggeelam na ko téye te mu bàyyi ma ak yow noonu jëfe yàlla daane ko waaye loolu day metteeg man jëfe yàlla taxaw dëgër fi ma dëgër ba tey dara taxul mu bàyyi noonu noonu joor daa di ko yow jëfe yàlla nag soo xamul buur dee na ñu ne la buur saay na joor noonu la fetasoo benn dagam daan na ko demal fa nga xamante ne foofu lañ dalal buur gàdd nga wol ma ko na ñëw léegi dama ko soxla noonu daal lingeer mer loolu moom joor garde bi dafa tiit ba bi mu génnee dafa daw bi mu dawee daal di daw daan na ko buur wuyul buur wuyul te bul toog jërul ngay xaar dara bul fi nekk di waaj wuyul joor nee na daf laa soxla léegi garde bi daal daal di teg pression buur boobu buur tamit foofu mer na ndax nit su koo tiimee noonu di ko pomti pomte waaye moom moo bëgg kon neex deret la war a def ba am li mu bëgg buur noonu la génnee defaruwaat jekkaliku pour su demee mën a jàkkaarloog ndaw si ndaw si am cofeel ci moom bi mu demee ba daal di dugg buur àgg na ci pale bi bi mu duggee fekkut kenn ci pale bi nga xamante ne lañ ko wax ne foofu la joor ne garde bi bi mu ànd ak moom ba indi ko fekk fa joor fekk ñu fa jëfe yàlla cay jigéen ak yi pexem ndeysaan lii moo tax ñu naan pexem jigéen moo raw pexem saytaane njëkkate jamono yooyu nga xamante ne joor yónni na garde bi ba mook jëfe yàlla dong nekk fa noonu la fexee jot ci jëfe yàlla maanaam noonu la fexe di xemmem loo jëfe yàlla boppam ba noonu la amee jëfe yàlla ci ay pexem cëy yàlla jigéen yàgg na suul ndaanaan ndaanaan boo fi gis am na buur suñ laajee kuy buuram mën nañ ne jigéen la ndax jigéen ak yi pexeem kenn mënu cee mucc ku dul ko yàlla dimbali laataa ñiy tëdd tam jëfe yàlla ñaan na ko pour mu bàyyi mu léegi mu takk ko pour sëy bi dagan lingeer daal di koy xamal ne ci dëkk bi fii benn nit moo fi takk sëy amul benn imam bu fi takk sëy man mii di joor sëy bu fi takku man maa ko takk ku ko takk maa la yebal kon sama sëy ak yow takk naa ko bis na tey yaay sama borom kër may sa soxna buur nag ginnaaw bañ ko dalalee ca pale ba mu toog gisul jëfe yàlla gisul joor waaye noonu la toogee ci kaw photo yi toog di leen xaar nes tour noonu mu toogee la jékki-jékki côté bi mu jàkkaar lool miir la ko tegoon ndax ay photo yiñ fi taf waaye noonu la jékki-jékki gis benn buntu tijjeekoo foofu bi mu gisee buntu tijjeeku fi dafa tiit mu daal ne kon fii ab buntu la waaye jëfe yàlla daal di ci buntu boobu ñëw taxaw mu gisee buur noonu mu daal di yor ab doxam daal di sëgg buur daal ne ko waaye yow kon yaa ngi woon ci biir anamu waxtaan ngeen ba pare anama lu mu wax comme que moom ma woolu bëgg naa ko gis noonu la joor daal di génnee Dior tam bi mu génnee génn na benn façon boo xamante ne kii nga xamante ne mooy buur bi mu koy gis melut woon noonu ndax xar kanamam soppeeku na waaye tamit doxee nam sansé na joor moo ngi yor benn sër bu weex bu mu lem bi nga xamante ne génn na ba jàkkaarloog buur noonu bu mu génnee buur daal di sukk ci suuf dal di toog jàkkaarloo ak moom ngir mën a fisal ak mbëggeelam waaye buur laataay muy wax noonu la ko joor feeloo joor daane ko bul wax li nga bëgg a wax yépp wax nañ ma ko ba pare ma lay xamal ne man moom joor bëgguma la te xooluma la bëgguma la tey bëgguma la ëllëg man kenn nit laa bëgg ci sama àdduna te moo ma gënal sama ndey gënal ma sama baay lépp lu ma am jox naa ko ko ba li gën a foor ci man muy sama jëmm ji jox naa ko noonu buur daal di tiit jug taxaw noonu mu daane ko jëfe yàlla jëfe yàlla daal di yor bopp bi ndeysaan joor daane ko jërul mu lay tontu firnde ji kay moo ngi nii daal di tàllal dorob bu weex bi mu yoroon bi mu ko tàllalee li nga xamante ne noonu lañuy ràññee ne jigéen gu am ndaw ba xam góor li muy génnee di génn ci moom noonu joor tàllal na ko daal di koy wan ki nga xamante ne mooy buur wan ne ko ne kii di jëfe yàlla man ak moom séq nañ àgg na ci sama kaw noonu buur daane ko jëfe yàlla kii li muy wax dayu ma xaw ma fu mu jër dareetam ji li muy wax tam gëmma ko yow moom joor xaaral ba ma wax ak jëfe yàlla ba pare man mii di buur kàngaarloo kenn duma toroxal te kenn duma wàññi kàddu yi nga ma wax dinga ko rëccu noonu la jëfe yàlla daal di siggee nag daal di jàkkaarloog buur daal ne ko buur yaa fi taxaw seddeel ma ci sama wax dëgg ci dëgg nga ma xam kon bis du ñëw mukk mu metti ba ma fen la joor mi lim la wax lépp dëgg la wut na ma yàlla mi dara tawul dogal na mu am ndam ba jot na ma tëdd naa ak moom te joor fas yéene naa koo jël mu doon sama soxna mbir mi nduru na wor loolu sax loolu dañ leen koy laaj yéen commentaire yi baaxam xam jëfe yàlla dafa war wala warul waaye buur noonu la ay cëram dammoo mu daal di rëpp siggi xool jëfe yàlla kanam gi saase nag karaw yi mustaas maanaam karaw yi sikkini ak faas yi commencé di fasalante maanaam di dajaloo bopp bi tam karaw gi soo ko gisee dafa mel ne lu sëq maanaam dafa mel ne lu yokk ni mu tolloon daf koo ëpp buur kanam gi saase loolu bët yi xonk curu buur moo ngi ngëb ay loxoom ba ay sidiidam di marqué mu am ci yéene loolu noonu la buur jékki-jékki daal di jug daal di waaxu rek commencé di fil bunt yi noonu lay filee bunt yi doonte xamul bunt bu mu war a jaar waaye noonu lay dajjee bunt yi di dajji ba génn fi nga xamante ne mooy pale bi noonu tam garde yi ku nekk génnee nga sa jaasi taxaw bëgg koo attaqué waaye ku ko xool doo ko ñeme ndax buur mer gi mu mer ak ñàng gi képp ku ko xool doo ko ñemee jege noonu la waaxu fu mu jublu ñu xajal ko ba ni mu génnee pale bi bi mu génnee nag daal di taxaw daal di jël ñaari loxoom teg ko ci gémmiñam daldi yuuxu yuuxu googu mu yuuxu nag dafa waxoon dag yi ak gawar yi su ko yuuxoon na ñépp génn te xam ne jàmm jeex na ay am na noonu nag bi mu yuuxoo rek ñoom ñépp ku nekk jóg gaaw dem fa nga denc sa ngànnaay ci sa fas nga génnee ko noonu lañ daal di génnee daw taxaw ci pénc mi buur daal di taxaw ci kanam génnee jaasi ju ñawtee ko tag yi muy ñeenti téeméeri dag nekk ci ginnaawam noonu tam lu tolloog juróom-ñetti téeméeri nit taxaw nañ ci buntu kër gi di escorter kër ga ngir buur bañ a agsi bay àgg ci ki nga xamante ne mooy joor kenn ci ñoom dem na wax joor li xew joor génn na ànd ak jafe yàlla taxaw ca ginnaaw dag yi nga xamante ne ñooy ay dagi joor noonu la buur daal di yuuxu yëkkati jaasim daal di yuuxu yuuxu yu foor daan ne maa ngi leen di seedeel ne yéen waa kàngaarloo sama bakkan bi fas yéene naa koo jaay jëmm ji di joor maane su ko jëlul dinaa jël bosam waaye ma leen di xamal ne képp ku ma indil bopp jëfe yàlla dinaa la def sama wéttal nga jege ma fépp fu ma jëfe yàlla tolloon ci sama nguur gi dinga nga toll fu ko raw lépp lu ma laan ko defal benn dinaa la ko defal fukk waaye nag képp ku fexe ba dagal ma bopp ki nga xamante ne mooy joor jàppal ne yow ak man ñooy bokk nguur gi nga xamante ne mooy nguuru kàngaarlo noonu la mbooloo mi yuuxoo buur yuuxu jiitu daw mbooloo mi topp ci ginnaawam noonu lañ attaqué groupe boobu nga xamante ne ñooy ay daji joor maane jëfe yàlla ndeysaan jaaxle loolu moom xamul fan la war a far ndax ba muy ànd ak buur bi jóge ca dëkk ba dafa jëloon décision su xeex amee mu ànd ak buur ci xeex bi ñëw attaqué ki nga xamante ne mooy joor noonu la jibi yàlla jékkee-jékk daal di génnee jaaseen daal di koy teg ci baatu joor ne ko xam naa ne damay dee waaye su may dee yow miy tax may dee maa lay reyal sama bopp joor tiit bay lox di katkat yi noonu jifi yàlla tege jaas ji bay biif pour dawal noonu lañ ko tiiree ñaari bal moom jëfe yàlla ci dënd bi ñu ko tiiree ñaari bal fital mu daldi di daanu joor dagg-dagg bi dese naa sori waaye daanaka lal na put gi joor tamit daal di daanu teg boppam ci dëndu jëfe yàlla deretam di xelli jëfe yàlla deretam di xelli jamono yooyu itam buur blessé na lool ndax benn loxo bi këtt nañ ko waaye tam jam nañ ko benn jam-jam boo xamante ni ci diggante xaru dënd bi lañ ko sàññi ab xepp ba buur daanu jaaxaan jàkkaarloog asamaan ndeysaan buur mu ngi noyyi noyyi gu foor di forcé noyyam déewagul ki nga xamante ne mooy joor mu ngi noyyi sonn loolu di xel li deret yu bari déewagul noonu jëfe yàlla tam sonn na loolu deret yu bari wër ko ndax ñetti bal lañ ko jam ci dënn ginnaaw bi nga xamante ne sànni nañ xepp ki nga xamante ne mooy buur daal di commencé rendi ki nga xamante ne mooy joor jam ñetti bal jëfe yàlla ci dënd fii nag lañuy ñuy finwee saison jëfe yàlla muy xale bi ak waa dëkk bi di leen jox di daje deuxième saison ci ay bis yii di ñëw jërul ngeen yàkkamti du yàgg dara ñoo ngi leen di sàkku nag seen commentaire ngeen wax ñu série bi lépp li leen ci gën a marqué ak li nga xamante ne mooy ci seen xalaat soo leen kontaanee ngeen bindal ñu merci ci commentaire yi comme niñ koy faral di defee chaque fin de saison kon nag bii saison bi am na àggale waaye ay bis yii di ñëw du yàgg dinañ leen ko indil incha allah jërë ngeen jëf ci taxawaay bi ak ànd bu rafet bi ci xale bi ak waa dëkk bi ci saison bi jërë ngeen jëf. man ma doon jaamu mbindeef si kaw suuf. dee dem bul yaa ma ko gënal bu loolu naree am ma màndal suuf sama deret man da jomb naa rusloo damel yu daanu ci tund yëpp ak lu tubaab bi bëri gawar fuñ ma sa fekk war naa leen sama jàmbaar sant leen ci seen jëf ji rawatina jigéen ñi. Lat Dior Ngoné Latyr Diop Damel du Kayor 1862 1882. di sant góor ji ak gawar yi taxaw bari jom lool bari fit lool waaye mane ne góor fit góor fit daje bi seen yitte la mbooloo mooy doole te lii ci ñag bi la jëm. bu ñu xoolee ba mu am fa kër nag du fa jóg. dëkk xeex bi ñuy xeex ci sunu biir nar cee dëkk ba mu waree jeex yàgg na lool. Birame Yacine Boubou Damel du Kayor C164 C181. li ko dalee ba gànnaar ba àgg Siin ak Saalum jant bi di fenke ba fi muy sowoo ñun ñëpp xeet lañu benn xeet lañu. naar yeeg tubaab yi ñii ci sunu kanam te di sunuy noonu ñoo war doon sunu yitt. jàmbaari góor man la Sukaabe Ngoone Faal man mii maa doonu saa baay. Lat Sukaabe Ngoone Fall Damel du Kayor 1697 baa xamoon ngeen tubaab bi ñuy woowee André. man mii maa ko fukki fan ak benn. buñ ñu songoon tey noppi naa man ak saay gawar. walaay dëgg la walaay faal. yow Joor Ndeela Fall fils du Damel Samba Yaya Fall. man Jéeri Joor. bu Ndeela ak Damel Samba Yaay Fall. bërki Demba Ndiaye laa dal seen kaw. daaneel fa lu bëri si ay góor. sama tund wii de bés buñ ma fi fekkee di nga xam ni bési góor dëgg moo koy bay. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. alhamdulilah. ndax li ngeen fi wax yépp dëgg la. Abdoul Kader Kane lieutenant de Souleymane Baal 1776 1807. mbooloo mooy doole. boo amee mbooloo mu sakkan wu nekk sa gannaaw foo leen jaarloo ñu jaar. war ngaa mën a tayle sa bakken bi ngir aar leen sàmm leen. Thierno Souleymane Baal wane woon na yoon wi de moom ñu xamoon ko ci njub maanu jaarale njabootam ci yoon. dëgg waaye jamono ji ñu toll nii tey puso ba réer na te suñu tànk yi buñ ko jubluwul ci yoonu booloo tubaab bi ak naar bi. du ñu jóg mukk ci duñu noot indil leen ma saw fas te waajal gawar yi bu ma naree seetaan saa tundu baay bi nax saay ma dee wuute ko mooma ko gënal na jàmbaar yépp jóg takku ñu dem jàmmaarloo jeg noonu te lu ma ci góobe gar ko akoy dëgg boo ko waxee day ñu gëm ko ndax lépp loo mës a génne ci sa làmmiñ wi say cër dëggal nañ ko faal mm-hmm. buuroo naam faal naam faal naam faal waaw ndax sax njàmbaar de wér na waa tund bi yëpp mhm. yaa nar a wuutu sa sukaabe faal mhm. te it bii mhm. jàmbaar ju am fit te xarañ moo mën a jiite gawar te it xare man ma doon jaamu mbindeef si kaw suuf dee dem bul yaama moom a ko gënal bu loolu naree am ma mandal suuf sama deret dalal ak jàmm ci suñ maison production suñ production di la ñaan nga abonné te activé cloche de notification bi partage ko sa ay xarit ngir ñu mën see jariñ bul fàtte di sem vidéo bi ndax da kay may doole loolu ci biir YouTube suñ production sunu mbégte sunu mbégte